Bombardier kay cinam bax na. fekk nañ ko mbuur bari ki dem. Mhm. lu ko jiitu jëloon naa ko fii saal fekk ko ci saal bi. waaw gis naa loolu ma ne ko Balla Gaye bi nga bëre ak moom dafa feebaroon wala boog nee na dafa feebaroon. wala supporter am wax loolu. waaw mu ne ma ndax wér na ma ne ko wér na ndax mooy borom UNICEF mu ne demal nga laaj ko bu wéree ba pare ñu jël combat bi te yaakaar naa ne bi nga jël combat bi wér nga macha allah yàlla na nga wér moom tamit mu wér combat bi taxaw na nee na nag ñaari coup attanoo ko ci moom. waa xam nga maa koy nuyu bu baax wér moom wax bu yàqu la c'est-à-dire que war a bëri nit naan ko yàlla nga wér rek yàlla nga wér loolu deuxième la wér mu ngi ci loxo yàlla suñu borom euh, moom lañ koy ñaanal képp kuy dund ci àdduna rawatina nag li nga xamante ni sekk nañ ko muy làmb mm-hmm. wér moom yaakaar naa ne du wax du du question de réponse ah, xam naa day bañ lay waaw non du question de réponse xam nga tax moo la lool. li am solo ba am solo moom jëluma sax ku moom Bombardier maa ko njëkk dóor moo jël njëkk a jël ku moom bu leen neex ngeen seetaan image day doo di mu ci ma dóor ko arrêt de tël man nag seetaanal sama combat yëpp yu ma mës a bëri yëpp yu ma mës a yëpp laa la wax de nga xool sama forme ak komba boobu ak yeneen yi waaye nag loolu kon passé na bëgguma sax ñu ci détail man ak moom la moom mu mu neex ko mu naqari ko am na combat mu neex ko naqari ko am na combat su ko neexee su ko bu ko neexee bu ko naqari yëpp am na combat mais lamin man xam nga nee na yow nee nga dóoroo dóoru la mais moom ci li mu wax kera ne daf la dóor nga jébbalu jébbalu waaw moo ko wax de man du ma mbër buy jébbalu kenn ci àdduna yaa ko jox boppam de yaa ko jox sa bopp déggoo ma de ma mu jébbalu loolu sax boo ko dee wax sax yow xam nga ne yow mi koy toog di ko wax moom mi toog di moom moom moom mi koy wax noonu xam na ne daa bëgg lu neex amateur rek wala lu neex boppam moom jébbalu man dinaa jébbalu kenn. Hmm. jamais de la vi dóor na ma ma dóor ko maa ko njëkk a dóor de gauche. Hmm. man damaa sëgg yuy faaf yi ba muy moom ba muy dóor maa esquive kuwam. donc combat boo ko seetaanee yow ko gis man maa esquive kuwam sëgg yem ci moom mu sol ma plaqué daal daa ko plaqué. Hmm. noonu la demee. mais du question loo xamante ne ay damay jébalu ba mu jëman du ma koy jébalu. Hmm. lan lan lan nga manqué wax nga sànq gis ngeen état bi mu andi. lan nga manqué woon que avant combat bi taxaw buñ la ci laajee rek sant yàlla damaa waroon a daan damaa waroon a daan mais am na mais yaakaar naa ne war ngaa rectifier xam nga lu tax ma wax loolu. parce que li la wax moo nekk sant yàlla laa ci def ci combat boobu hmm. sant naa ci ba ñu ci yàlla def mu am ci ndam. nangul nañ ko ko waaye li ma ko mën a xamal mooy am nga combat yow gënoomaa diis loxo hmm. gënuma ne xale yaamu mag yow koo magee dix ans nga taxaw naan doole doole Bombardier bu ma ko bul doole ëpp ma doole wala yàpp Bombardier doole barke ma ko bul doole ëpp ma doole wala gis nga Bombardier non bind ak maas ak yax duñu benn hmm. waaw bu jaawleeg bind ak maas ak yax du ñu benn lan laa la wax. bind nga ma wax ak maas ak yax. waaw ah, lan mooy léegi lan mooy seen différence. ah yaa ma ko man kay yaa ma gën a xas waaw mooy différence bi. yax bu diis. waaw ah. sa bosa gën a diis bosa. déggoo ma de yax bu diis mooy différence bi. mooy différence voilà. mais am na leneen lu mu wax Lamine parce que nee na yéen ñëpp di mbëri ci làmb ji bu ñu leen boole woon contact suba ba ngoon bu ngeen dawut moom du daw kon moom wóolu na ne li mu yor ci doole kàttan ak physique ak lu doy kenn ci yéen denc ko. yéen ñëpp la wax 45 46 ans wala 45 ans ak 25 ans ak 30 ans du ñu benn. ku am 46 ans. ans yi kan moo la dama laa jox ay nette rek damay la 45 ans 46 ans ak 30 du ñu benn hmm. waaw. am ci yéen ñaar ku am 36 ans wala ku am 46 ans. non wax ji nag Babacar Lamine Babacar da ngeen may déglu dama ne la 45 ans. ak trente ak trente cinq ans. wala trente nga am ko est benn la. loolu at du benn. waaw du benn mënoo am quarante cinq ans presque yow nga ne yow kii am trent kii di dugg si trente ans ak lu teg nga ne yaa ko bu doolu mënul nekk. bu fekkee ne bu fekkee ne yow da nga xale bi. dafa bàyyi bàyyeeku yow ngay liggéey. mun nga ko bu doole mais xale boo xam day xëy di liggéey kon yow mu gën la nekk xale gën la fere yoo nga am âge boo xam ne moom yaa ko ëppale foofu. mais doole nag xanaa nit doo ko ëppale doo ko magee dix ans foyewul boppam caaxaanewul boppam hygiène de vie bi ngay wax ëppale woo ko ko noppal bi ngay wax ëppale woo ko sart ñu lay teg ci entraînement non yow moom bu la gën a ñemewul coono moom munoo taxoon ne yaa bu doole. laaj naa ko ci âge bi nga wax noonu parce que ku ne xam na ne Bombardier moom wala mag mais moom la ma tontu mooy ba ma koy daan maa ko magoon. waaw ba mooy daal moo magoon ci mais par contre c'est pas euh, c'est pas la même chose. du benn de. Hmm. daan na ma daal daan na ma d'accord naa waaye moom bu soobee yàlla. bu ko neexee moom. xam nga moom dañu naan ay defal gauche defal droite loolu yàq sa temps la. Hmm. man mii di wax ak yow moom nekk ma fi naan defal gauche defal droite loolu yàq sa temps la waaye daal li ma ko mën a xamal mooy lool am nga combat mu neex la am nga mu naqare la am nga combat gënuma dis loxo. benn gënumaa jot loxo ñaar li ma la mën a xamal daal wax ji jaru muy bëri li am importance mooy yaa ngi liggéey maa ngi liggéey ba le jour ji xam la woon weesu na sax woon ni te moo ngi lay junj ci benn wax naan combat bi lu tax mu jël ko moom moo xam après dina leen wax moom moom moo yee wax loolu li tax mu jël ko yow da ngaa xam la muy wax comprendre li ma la wax de moom dalaa junj te yéen xamu leen ko waaye man ak moom xamante ne li tax mu jël combat bi ak lu ci rey boppam moom nee naa pare ko wax ah. moom bu paree moom du wax leen lu daan nañ ma rek du nettali kon déedéet lu muy nettali même defee na leen ci affaire ci ci bëri defee na la ci no ci contact non non jaxasoo bëri non non non non non non non champion la nangul rek lu mu lay li ma mën loo mën d'accord na mën moom na ma ko nangu rek moom xam naa ne nangul naa ko li mu mën mën na bëre champion la waaye man li ma mën moom yàlla jox na ma ko don la et ma am ci ma jàngaat ci xam-xam. ku dàq bëre yéen ah. Ah, des na ko laaj liiru jàngaan mo ku dàq bëre kay. Sénégalais yàpp nañ ngeen laaj ñu jugé. yow la ñuy def waaw moom. kan xam ñëpp xam waaw loolu ak mu loolu yi laam ji dañu ci bëri daan na la est-ce est-ce que lañ koy daan waaw tamit jar naa laaj de waaw xam nga ku daanu ci bëri lañ la daane par accident mu ñu door la nga daanu wala nga dóore ñu daanu mais képp fii ku fi daanu rek dañ ci bëri lañ la daane. loo bëri sax ma tudd. xam nga xam nga man moom sama combat daa yomb nag buñ buñ sama diggante mu dafa yomb. nam la daan daa yomb. xam nga bëri naa Moustapha Gueye yombul Moustapha Gueye bëri na ñu am na temps am na diire bëri naa ak Modou Lo am na temps du dëgg man sama combat moom yàggul action bu gaaw la. waaw foofu bëreemu fa na ne bëreemu fa. man de sa sa sa sa sa waa ji xaw ma sa mag la xaw ma sa lan la sax moom defe naa sa moom laaxaal nañ ko ci combat nañ ko nga moytu. liiru jaan day nañ ko moom ne nañ ko nga moytu parce que ñaari kuy yu bokk mbalka yi mbëkkante ne nañ ko bu ci dugg taxawel ne lee melal ni kuy fotowu ah, sarax daa loolu de daa xaw a rëy non liiru liiru du saraxu kenn wax dëgg yàlla ah. xëy na saa doxee mbalak rek mais du saraxu kenn suñu mag la sama mag la magu géejawaay la monument géejawaay la képp ki nga xamante ne doomu géejawaay am na combat Lirou dala fay défendre dala fay jàppale dala fay wax lépp li nga xamante ne rek di la ñax moo tax yaa ngi ko gis ñu ñu fekk ñuy entraînement suba ba ngoon vraiment maa ngi koy sant bu gërëm bu baax di gërëmu si tamit coach bi nekk fi Thiam ak euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak Golf Fitness Club Hmm? papa mi nekk si ak caam mi nga xamante ne mooy gymnastique bi ak euh, sama poulain bi Badara Ñing di ko gërëm di ko sant <laughs> mooy indi poids yi diis yi waaye daal du gaa xam naa leen bomb hmm. ah <laughs> mais baax la yaa ngi raay bomb rek doo wax ak kii jàkkaarloo moom ci bët wax ak moom a ah, reetaani bari na de. déggoo ma de. bombar ji te yow mi da ngaa ni kuy lewatal. moom daa xam lu xew rek. moom bu doon wax sax yow mi est-ce que xew. non moom moo xam lu xew. yow xamoo li xew. non non moom moo xam na xew xam nga moom la ñu junj rek ndeysaan te junjam yooyu ay ree la <laughs> ma def. wala da ngeen bëgg da ngeen a bëggante. daa mel am seen diggante de. parce que non non di mënuñoo bañante. non pas bañante nii ko mais maanaam mu nekk sa mbër affaire yooyu. non man sama mbër kenn loon muy Tyson Tyson laa mos a séparé ci làmb man dañ laa xamoon kat yow ci lu metti danga daan tengal ba mu teng. waaw mais xam nga wax bu teng moom day fekk combat bi jege wala yu demee noonu mais combat bi jegegul loo fi wax. ah dëkk bi xaw naa yëngut. Ah, vraiment. xam nga dëkk bi daal li koy yëngal mooy ñibbi saison bi rek. Ah, moo koy yëngal moo koy yëngal. mais ko tëgg. waaw waaw retouru Gaston Mbengue ñu koy nuyu di ko ziar suñu papa jooju. waaw waaw retouru père Gaston nekk na lu neex parce que aussi tamit combat yi mu tëgg nii combat yi neex la. combat yu am maanaa la combat yu am solo la parce que boo seetee tëgg na la de guerre mu seen Balla Gaye Bombardier ak kan jil kayri mu do anta waaw bëri na daal wane na tey saison bu tijji woon combat yi neex am na Ama Baldé Modou Lô taxaw na donc combat yi neex yëpp am na donc ku des mooy Gris Bordeaux combat hmm? donc yooyu la ak ñoom saa kees ñoom garga ñooyu yëpp war combat ay Yékini junior donc daal comme naa loolu mooy tëj saison bi nga xamante ne bu saison bi bon rek mu neex. Mhm. bu ñu amoon combat rek mu neex. waaw mu gën a neexati sax. mu gën a neex. ba ba Babacar dama koy amee moo moo tudd Sa Thiès sànq moom ak Garga Mbossé. Mhm. taxawoon na. annoncé woon nañ ko. annoncé woon nañ ne taxaw na. waaw loolu daa mën na yaakaar naa ne combat bi taxawul. moom tamit toog 2018 ba léegi bëriwul. waaw kon mu continué di nekk ci entraînement yi. waaw mais c'est normal xale la parce que man mii di joxe yow tey gàddaay naa fi quand même. toog fi deux ans yoo xamante ne bëréewuma ba jëm ci trois ans chaque jour maa ngi ci entraînement yi moom xam na ci dara ñu daan na di ko liggéey parce que àdduna moo demee noonu nekk na xale bon yàlla dogal aussi tamit moom ci lu mu génn mais teewul wul benn yoon bàyyiwul benn yoon mu ngi ci liggéeyam te loolu lañ koy ñaanal mu nekk mu continuer ci liggéey bi yàlla jàppale combat bu moom yàlla may ko ndam loolu rek la parce que affaire bi moom liggéey la ñax jëriñu loo liggéey moom ngay fayee ko liggéey mënoo ko fayee mais problème ñàkkam combat bi. da ngeen dama koy laaj mais moom boo ko laajee moom maanaam tontu ba ngay xaar sax du la ko tontu maanaam dernier kase bi moo bëri ak Boy Niang su ngeen di sukkandiku ci ci kase boobu est que dina bëriwaat gaaw bëriwaat sukkandiku si kase boobu parce que liñ ko fayoon boobu bëri na quand même aussi mais sukkandiku ci kase boobu mais parce que waxaan waxataan nañu woon ak euh, Thialis ba jubóo ci kàddu mais après gisaatuñ ko donc voilà loolu kese daal. Thialis rek ñëwoon wala am na ñeneen yeneen promoteurs yu ñëwaatoon. waaw ah, Thialis moo ñëwoon ak ñeneen ñëpp dañ doon wax nii rek à peu près di bàyyi quoi. mais yow daal gis nga ne tey bu promoteur ñëwee bu raisonnable lee Sa Thiès dana jël combat bu nekk ci yoon war a bëri fu mu teg bëtam du xaalis moo koy ci làmp muy bëri wala muy wax bëri compétition la soxla ak bëri pas nekk fi naan kase bu cher wala nangam sàngam déedéet. bis bu war a toll moom waram kese bu cher dina ko am bis bu waree toll di fekk cent millions dina ko fekk mais li am importance ak li ñu war a tey ci jamono ji ko dese mooy entraînement gérer lu mu war a gérer luñ ko fay mu yënnu maanaam mu war a bëri dina ko bëri loolu rek lañ ko sant. tey promoteur fi lamb bi toll xam nga ne tey Balla Gaye bu demee bay wàññi kaseem ak keneen ak keneen.